man la Ndeye Maty Sène di première vice-présidente ARCODAS muy association des ressortissants de la commune de Danksen di première vice-présidente UNP tey damaa demoon delluwaatoon sama dëkk seen man Ndeye Maty Sène aussi di présidente mouvement MDS euh, delluwaatoon tey seen ndax semaine bii ñu génn dama demoon seen pour def transfert euh, yàlla dogal bi ma demee certificat de résidence bi ma yore woon nga xamante ni defe naa ci début weer bi laa yónnee woon sama carte d'identité ñu defaral ma ko bi ma ñëwee di bindu ci commission bi di def sama transfert ah le président toog ak euh, représentant Sénat ma jox leen ko ñu xool ma génn sama photocopie d'identité ah le représentant du maire nee na le représentant du maire la. waaye li ma jaaxal mooy ñaari kasket la toogee ndax nee na mooy représentant APR mooy représentant du maire ah mu nekk ñaari casquette yu mu yoroon foofu ne résidence bi ma yor signature bi baaxul ah, comme nag dànq seen ñun ñëpp ay mbokk lañu dama jàppoon ne rek diggante doomu bàjje nag doomu nijaay lay yeex ah, ma jàppee ko ay kaf mais bi mu insister ba ca biir nag ma xam ne kii ah, ci dëggam la ne représentant Sénat bi ne moom kon Euh, kenn du ma inscrire euh, bi ñu demee ci biir insister mu ne duñ ma bind ndax signature bi faux la usage de faux euh, ci biir wax ji mu daal di dem woo le maire ndaxte li ñu bëggoon mooy baare ma ndax avant may ñëw yëg na ne maa ngi ñëw ah bi le maire ñëwee nuyoo ne ana papier bi ñuy laajte le représentant du Sénat mi ngi ko yoroon jox ko ko mu xool mu daal di lem papier bi daal di def ci poche ma ne ko looy def nii. mu ne ma faux la signé ko ma ne ko non attends papier bu faux kay doo ko de lem noonu di ko yóbbu mu ne ma nous sommes en politique. comme nu sommes en politique nag dangay fexe ba wër village yi wër chef de village bu la defal certificat de domicile bu la ko defee nga ñëw ma defal la certificat de résidence mais bi muy wax loolu il savait pertinement que amul benn chef de village bu amoon certificat de domicile. donc xamoon na ne benn chef de village du ma defal certificat de domicile mais man dama jàpp ne certificat de domicile certificat de euh, résidence c'est rien du tout parce que man sama baay dafa cosaanoo ca dëkk ba ñu ko Ibrahima seen Sénégal ñëpp dégg nañ ko ku xam day Maty seen xam doom Ibrahima seen la xam ne dànk seen lañ cosaanoo mieux damaa nekk ca kër ga sama papa am fa kër may tëje ko tijji di dugg ko génn dem ak a dikk le maire n'a pas voulu que je m'inscrive mais biñ demee nag tey jii coow li bari mu daal di dem ma ne la représentant du Sénat bu fekkee man dama yor papier bu faux ah maire warta génn dem yóbbu ko di ko xotti daf ko war a génnee ndax loolu euh, pièce justificative la kon boog loolu waru ko yóbbu dafa war a toog mu ñëw parce que loolu dafa doy waar mais xam na ne bañ ma inscrire moo taxoon mu xotti ko waaye moom mënut a tere ma inscrire ci liste yu dànq seen tey jii nag bi ma dellu si waatee fekk ma am sama abonnement woyofal senelek ah, ndax loi bi ndax yaakaar naa ne article article 36 article 37 article 39 ak article 40 yaakaar naa wax na lu leer ci wàllu élection yi kon yaakaar naa ne man xam naa je suis légaliste vraiment xam naa li ma bëgg may woo jigéen ñëpp nag Sénégal pour ñu taxaw ndax nag ren danoo fas yéene nag jigéen ñu bari taxaw doon maire 40 pour cent yi au moins nekk ci ay maire rawatina nag maire yi nga xamante ne nii defuñu dara amuñu résultat kon nag dafa jot pour ñu xeex. kon tey ma ànd ak samay collaborateur samay ñoo xam ne samay naataangoo lan ñu ànd di xeex ku ci mel ni Ali Lom di responsable à Lomène ku ci mel ni mbay Faye ku ci mel ni Sëñ Touba Sène ak ñeneen ak ñeneen Alassane seen ak ñeneen ak ñeneen ñu ànd tey jii delluwaat dànq seen pour ma inscrire ah biñ demee ba foofu aussi vérifier aussi ñi toog ca commission ba yan parti la ak ñan lan fa toogal parce que nag man mënumaa xam benn nit ne man maa représenté APR keneen ne ma maa représenté le maire tey jii bi ñëwee kenn même personne bi yor ñaari kasket yi ah ma ne nag lii c'est pas normal ñu deni dénoncé loolu eh, yàlla dogal nag waa CEDA fekk ñu fa ñu di leen félicité di leen remercier bu baax a baax a baax ci seen taxawaay ndax bin ñëwee dañu wax ne ah ñun de dañu ñëw di def compte vérification di wër commission yi bin ñëwee fekk coow am fa ah ñu laajte lan moo xew ci diggante boobu encore la même soi-disant Adama Sène ne mooy représentant maire représentant APR dem woo monsieur le maire mu ñëw Abdoulaye seen maa ngi koy nuyu nag au passage ndaxte nag lu mënti doon sama mbokk la waaye maa yor maire bi 14 ans kenn du fi toog loolu yàlla may ko kenn nguuru yàlla rek a dul jeex te ku ñemee am sa bilan mën ko défendre jarul ngay bañal kenn résidence kon nag bi ñëwee ñu laajte lan moo xew mu ne man dama fa indi woon résidence boo xam ne baaxul waa léegi yow waaye nee na ay comme ay biiru mbokk la moo tax moom jéemu ci dara yàlla dafa dogal nag résidence bi dama ko yoroon sama téléphone ndaxte nag yor résidence yóbbu ko ne signature bi baaxul yomb na lool ndax bu ëllëgee kenn mun a taxaw ne lii mooy signature mais ndax bu fa indee beneen résidence bu mu signé ak beneen signé contre signature mais kenn mënul wax ne lii mooy signature maire moo tax ma ni damaa yor sama ndaxte nag ci dëkk bi laa dëkk ci dëkk bi laa dëkk te je m'attendais à ndax keroog ba mu ma nee nous sommes en politique tey jii dafa ñëw féddaliwaat ko et y avait des ndax waa SEDA ngi taxaw commission bi ñii ngi taxaw mu ne kii dafa ñëw bëgg a bindu si fii ndax dafa bëgg a nekk candidat eh kan moo war ta doon candidat kuy citoyen ci réew mi am nga sañ-sañu ne gox bii dama koy laaj sa askan buñ la ko joxee ñu jox la ko buñ la ko joxul nga xam ne joxuñu la ko ndaxte wut am yàlla la wut ñàkk it yàlla la nit looy def da nga ciy boole gëm yàlla hmm. ah, gëm naa ne nag ñàkk ñàkk naa gëm yàlla ci li muy def waaye man intimidation xoqatal du ma tax a dellu ginnaaw bu soobee yàlla fekk yàllaa ngi may may sama kii muy bakken bii man xaw ma dellu ginnaaw. pas encore ndaxte la préfet dañ ko woo ma génneel leen photocopie d'identité sama papa muy Ibrahima seen ne à Dank Sène yaakaar naa loi bi li mu wax ci loolu leer na yaakaar naa bu dee wut lu ma liyee ak sama commune leer na waaye nag dafa am bu ko gën a jiitu sax ndax première vice présidente. de de l'association des ressortissants de la commune de Danksen yaakaar naa ku cosaanawul ci gox doo fa doon première vice présidente chargée de femmes et du développement. Euh, li ci des nag man ak le maire la ndax nee na damaa bëgg a nekk candidat am naa ci droit et je suis candidate à la mairie de Danksen bu dee dafa ragal. ah bu yaboo mu teel a dem de xam ne duma dellu ginnaaw intimidation man jaaxaluma te nag dama ànd ak groupe boo xamante ne nii yoo xam ne benn yoon.